du ma bett euh, puisque <coughs> euh, dama jàpp ne euh, développement dafa am ay piliers piliers yooyu te tubaab di ko wax secteur primaire mooy mbay mi mhm. napp gi ak sàmm gi ñu wax ne secteur boobu mhm. tant que taxawul mhm. quel que effort yi nga xamante ni gouvernement bi da koy def population yi pour ñu yëg ko day poser problème mhm. d'autant que boo seetloo ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci secteur boobu c'est plus de la moitié de la population mhm. ñun sax li ñu daan jàngal mooy soixante pour cent de la population e dans le monde rural absolument waaw primaire de loolu dañ doon jàngal très bien mhm. donc bu ñu considérer ñi ëpp ci sénégalais yi ci lii la ñuy yëngatu dama jàpp ne kon li ëpp ci xaalisu Sénégal ci loolu lañ ko war a yóbbu pour ñu gis ci au moins euh, benn changement boo xamante ne dina mën a permettre yeneen secteurs yi mën a appuyer wu ci euh, secteur euh, primaire boobu parce que li tax mu am importance mooy que secteur primaire par exemple bu dee mbay mi dox na industrie bi mën na dox mhm. parce que industrie lu muy soxla mooy matière première te yaa ngi koy jëlee ci mbay mi joxe nañ fi dernièrement ay exemple cacao yoo xamante nañ koy jël kilo bi mhm. fii ñu dem transformer ko indi ko jaay ñu ko dix fois plus mhm. donc bu nekkee euh, napp gi dox na mhm. mën nga également créer des société yoo xamante ne nii mën nañu di œuvrer dans la transformation Sénégal tey boutique boo fi dugg day jaay sardine amul benn sardine boo xamante ni Sénégal fii lañ koy defaree Euh, ma ne secteur euh, élevage bi bu doxee. Mhm. élevage bi bu doxee. Mhm. di nga mën a créer ay industrie est-ce que Pape Matar xam nga ne meew mi ñuy con consommer au Sénégal quatre-vingt-dix pour cent. Mhm. bitim réew lay jóge meew bi ñuy naan fii Sénégal. bi ñuy consommer poudre bi. quatre-vingt-dix pour cent bitim réew lay jóge tey jii nii bu nekkoon ne Sénégal élevage bi. def nañ ci investissement yi nga xamante nii moo war dina mën a permettre industrialisation am parce que di nga créer ay société yoo xamante ne nii ci euh, secteur boobu la ñuy déparé pour mën a joxe seen fruit donc xam nga limal naa la secteur yoo xamante ni c'est des secteurs clés yoo xamante ne nii normalement Sénégal non seulement euh, euh, bu ci taxawee suffisance autosuffisance alimentaire bu ñuy wax mën a nekk une réalité parce que agriculture ci leen nit ñi di sukkandiku pour dundu ma ne non seulement dinañu permettre ñu alimentaire ma mais dinañu permettre également ñu créer des entreprises yoo xamante ne nii dinañu mën a jël ñi nga xamante ne nii ñooy wut xëy te ñu ëpp lool ci réew mi muy la euh, la la la jeunesse donc léegi bu ñu nee Pape def nañu budget six cent six mille quatre cent milliards. Mhm. Hmm? ñu ne la quarante cinq pour cent budget boobu ci social bi la. waaw maanaam euh, subventionné ak euh, comme ni nga ko waxee noonu séddale xaalis mhm. directement. Mhm. te séddale xaalis boobu directement. dafa ñëw fekk fi beneen politique boo xamante ni gouvernement mu ngi ci woon. muy les bourses de sécurité familiale. Mm bu nekkoon tey normalement Pape Matar ba ñu euh, le président di wax en 2012 que Sénégal euh, ak PSE dafa war a émerger. Mm-hmm. bu nekkee en 2012 dañu joxe deux cent 200000 bourses. Mm-hmm. Hmm? mais deux dañu war a joxe normalement cent mille bourses parce que ñi pauvroon wàññeeku nañu. ci yoon. du dëgg mais yow deux mille 2012 nga joxe deux 200000 bourses. Mm-hmm. deux mille vingt deux nga bëgg a ñëw joxe deux cent cinquante mille bourses. Mhm. wala trois cent mille bourses. ñu ne loolu doyul nga ne da ngay yëkkatiwaat ay cinquante milliards bu ko distribuer nit ñi nii comme ça par hasard. Mhm. est-ce que loolu ça ne montre pas e bi nga doon wax ci ginnaaw ne moom moo war a tax Sénégal émerger mhm. bu doon kooku joxe na ay fruits am est-ce que sénégalais dinañu gën a ba tey gën a soxla ndimbal. kon maam Birame bu ma la déggee bu baax euh, tey jii euh, politique gu Macky Sall bi dafay gën a dem ñi nga xamante ni dañuy nekk dans le besoin tellement dans le besoin que dañ leen war a dimbali jox leen xaalis diggante 2012 ak jamono jii nii dañoo yokk. ah seeni chiffre de loolu lay wone mhm. bu nekkee 2012 dañuy identifier ne deux cent cinq cent mille bourses la joxe. Mhm. ñii ñoo ndóol dix ans après ñu ne léegi deux cent cinquante mille ça veut dire que ñii ndóol dañoo gën a bëri. Mhm. <laughs> du dëgg. Mhm. alors que ci diggante bi mais mënuñu la wax Sénégal li nga xamante ni dugal nañ ko en terme d' argent. Mhm. ci dette. Mhm. mais dette yoo xamante ni da nga koy jël nga def ko terre nga xamante ni du rentable. dette boo xamante ni da nga koy jël nga def ko stade Abdoulaye Wade. du mais dette yooyu naka la mën a amee répercussion boo xamante ni dina permettre mu changer ni sénégalais di dundee. mais lu gën a leneen lu gën a garaaw mooy ci seen budget bi. Hmm? waaw li nga xamante ni moo waroon a nekk investissement. Mhm. investissement investissement waaw. dafa wàññeeku de cent soixante cinq milliards. lu war a rentable maanaam dafa wàññeeku de cent soixante cinq euh, milliards. maanaam xaalis bi ñu waroon a jël. Mhm. pour investir ko foo xamante ni dina permettre xëy na sénégalais am ay services. Mhm. loolu dañ ci wàññi cent soixante cinq milliards. ça veut dire quoi xam nga da dugg ci ab mairie. ñu ne la cinquante pour cent budget bi. mooy fonctionnement. Mhm. <laughs> cinquante pour cent budget euh, beneen cinquante pour cent bi mooy ay subvention sociale. ñu fi tappale léegi investissement anam. parce que investissement mooy loo xamante ni da nga koy def mu war laa jural koppar goo xamante ni nga ko mën a dugal feneen. rentabilité rentabilité. Mhm. mais loolu ci ñoom si budget bi ñu présenté dafa gën a wàññeeku. Mhm. léegi bu nekkee investissement yi day wàññeeku. ba pare social bi di gën a yokk mhm. parce que boo déggee ñu ne quarante cinq pour cent budget bi si social la jëm boo ko estimé ça fait plus de deux mille milliards mhm. ça fait plus de deux mille milliards mhm. léegi yow <laughs> yow nga nekk un pays boo xamante ni y'a tout à reconstruire président Macky bu mu demee démb euh, euh, Riyad xama bërki démb lu mu wax mooy l'Afrique c'est un continent d'opportunités. Absolument. il y a tout à construire. kaa leen investir fii. très bien kaa leen investir fii. Mhm. mais investissement boobu état bi du ko commencer d'abord. vraiment. état bi du ko commencer d'abord yow boo demee Maroc gii nga xamante ne nii euh, am na yenn politique yoo xam ne dañ koo teg sur place man sénégale bi su ma ñëwee waxuma la ay entreprise waxuma la ay PME de. Mhm. mais boutique ma bëgg koo ubbi dañ naan ma wutal benn marocain yéen ñaar ngeen booloo. moom mu am cinquante et pour cent man étranger bi ma am quarante et pour cent léegi yow Sénégal moom euh, euh, euh, le sultan des émirats mhm. nee na moom moo doxantu ci benn place rek gis ne fii moom mhm. war nañu fa teg benn <laughs> port Pabadaal mooy port de Ndayane bi waaw léegi ñoom loolu day nekk investissement boo xamante ne nii naar yi ñoo ko moom mhm. mais biir Sénégal la nekk mu mel ne rek dañoo jël ñoom seen benn port délocaliser ko Sénégal. Mhm. Sénégal nga xamante ne nii face à à l'océan Atlantique Amérique nekk nii Europe nekk nii nga xamante ne nii c'est une très bonne porte. Mhm. Ah, mhm. yow nga bëgg a ñëw jël ab lu toll ni port. permettre ñële ñu ñëw pratiquement lay wax sax délocaliser seen port Sénégal. donc xam nga euh, mooy loolu rek fa ñu raté euh, base yi ñu waroon a teg. pour développer wu. ak Macky Sall gi mhm. moo weesu. Mhm. Euh, Ndeye Kane nee na Pape Makhtar mes proches me je suis la maman de Guy